Dakar, notre plateforme asaka yéene euh, damay am kenn koo xamante ne daam yenn saay dafay jaara ci moom suñuy mbir mhm. muy Ibrahima Diouf di Ibrahima di trésorier wu association bi daam wàccul yoon yi mhm. ndax euh, Ibrahima juf euh, du góor magam la ndax mooy jëkkëru bàjjen di magam magu daam mii kon kooku daam dafay jaarale toujours ay xéewal naan ko joxal ma ko gaa yi bu ñu toogee moom it mu génn ko niñ ko daam joxe jox ñu ko kooku tam vraiment ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax Iba loolu lépp mënoon na am lu mu ciy jéem a def waaye yenn saa say day encouragé daam mii naan ko gaa yi daam mu naan ko Iba wax ma gaa yi nu ñu nekk loolu aussi dama ko si yokk jël di paate wax di wax ne daam ñu lay jox nii. Ah, lu ñu xeeb la mm-hmm. dañ laa ñawal mbubb damaa bëgg nga jóg taxaw man mi maa la ko jox en tant que président ah, euh, ah lii nag moom a taxaw solal la mbubb mani mani euh, si suñu sañoon dañuy taxaw fii Thiès gépp taxaw ni jox ko ko daam suñu sañoon fee la ñuy taxaw cees gépp taxaw ndax xam nañ des na tuuti macha allah Thiès gépp dañ la fekk fii ndax sa jikko waaye dama lay wax benn affaire ah. ñi gars yi fi ñu dëkk am na ñoo xam ne danoo sori looloo tax ñu ne nan taxaw heure bii dox la ko waaye bu ñu paree gars yi dañuy dem kër ga sañ sawaat ñëw toog waxtaan ak yow ba bët set barke Serigne Touba lii nag da koy solo wax ne baate li nga wax dëgg la ndax daam sunu rakk la sunu xarit la sunu lépp la ndax kenn li naan la paix c'est pas un mot c'est un comportement et comportement c'est pas l'habillement mais c'est la nature jikko la te jikko jamu amoon ba tey moom la yor ba léegi muy def ci ñun ay teraanga yu bari macha allah lii la lay njukkal rek waaye lii du lenn barke sëñ Tuubaa yàlla na sëñ njiglaay te nga rappal ko barke borom Tuubaa waaw xale bu ne war ngaa wut lii Thiès. waaw yow yaa ko njëkk a am Thiès yaa ngi sa diglaay. parce que sëñ Touba. waaw lii du sens bi mérite la si moom. mérite la dafa xam ay baayam xam lépp. très bien. da nga tàllal rek. waaw. parce que ni nga wala mbokk. noo def lii Thiès. tableau bay waaw déedéet ak kay na la ñëw leen nii. waaye man daa yàgg waaw daa yàgg waaw daa yàgg waaw daa yàgg daam daal yi damaa bëgg nga sol ko léegi. ma xool man ba ñu ñëw Dakar live loo loo kii rek ñu wane ko. àdduna bépp koy gis. vraiment wax dëgg yàlla. ma kontaan lool. waaw waaw. waaw vraiment. vraiment waaw ma waaw vraiment que nu kontaan. may ma tuuti daam bala ngaa wax. Hmm. détail bi dafa xat nan ko yaatal tuuti. na ku ne arrière arrière leen arrière leen. waaw arrière leen tuuti waaw. waaw ma waaw maa ngi nuyuwaat àdduna bi yëpp. dafa des. des na beneen tableau. ba loolu wéyee foofu de. ndax xam nañu yow taalibe nga. te ku bëgg sëñ Saliou Touré la. amoo ci moom sago. daam ku xam xam la kër sëñ Saliou Touré daam ku xam ah. ku lay seet la ah. dem taxaw buntu kër sëñ Saliou Touré ngay taalibe barki Cheikh Ibra Balla Mbaye mën na maa seede Ala Mbaye mën na maa seede Paate Mbaye mën na maa seede bu ñu umee koor fulk bi sëriñ biy def kenn du la fa jiitu kenn du la fa mujj fanweeri fan yëpp yaa fa boole koog di togg say xéwal di ko indi di ko jox waa kër sëñ Saliou Touré loolu il faut ñu xamal ko waa Thiès xam ni nga toll ci sëñ Saliou Touré di taalibe di murit sadix loolu yi nag président ci boppam ala dërgal ak di di trésorier Pate Mbaye Balla Mbaye vice président Malick Fall Mbaye Gueye ñaŋ ñu ne nañu xalaat ak grand sëgg mag Ousseynou Ngom mm-hmm. nañu xalaat ndax kat daam taalibe sëñ Saliou Touré la ñu ne kon nañ ko wutal tablo tablo bi léegi nag dañ koy sargale daam waaw léegi bu ñu defee bu ñu dindee tablo bi def lan def ci lan association Guirée de Thiès sargal Dame Sène taalibe Serigne Saliou Touré c'est Serigne Ngok Yangi Dame ne pleure pas les nobles savent venir c'est papa la ko defal ne pleure pas Dame yaa ñu sagal yaa ñu sagal yaa ñu sagal soo gisee ñun suñuy doom ñooy tëgg man noonu noonu ñëw comme ni Pate Mbaye waxam ni mais yow yaa nu jaral lii ndax dafa ci am ñoo xam suñu dëkk dafa sori mais euh, li nga def ni yaa ko def ci ñun. moo ko def ci ñun ñu ñun ñun yaay suñu Wally Seck. Ah, waaw waaw waaw wala Seydina Mouhamed ndax yaa nuy jàppale ñun ñun ñun. xoolal ñun ñëpp yaandu sagal man toujours dama la koy wax nee na yal na la jàppale yal na la yàlla jàppale ñun kontaan noonu trop bàyyi na la bàyyi naan la sëriñ Touba sëriñ Saliou Touré sa sëriñ waaw jërëjëf bala nga tëj dafa il faut ma am lu ma ci wax ma ko muñ parce que li gars yi wax il faut ma wax ko quoi daam day suñu rakk ñun ñëpp teraanga ji mënul defal gars yi wax nañ ko ñëpp mais il faut ne suñu xool il faut ñu wax ko danu koy ñaanal yàlla sunu borom mi nga xam ne mooy borom jàmm mooy defale mooy defale yàlla na ko yàlla jafaral jàmm ci bisam bi mu commencé ko ci bisimilah eggale ko ci alhamdulilahi rabbi alamin te muy njiglaayam ndax jàppale na magam ñëpp barke cheikhul xadim ñun jooyatuñu dara ndax daam yàlla na ko yàlla jàppale te incha allahu rabbi léppay baax sàmm yàlla yàlla jàppale. waaw dañuy tàggatoo ndax nag liñ ñu jot may ci ci waxtu dafa dafa jeex tàkk bu ñu continuer dinañ laal waxtu jàmbur alors Dame Sène dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak kàddu yi nga xamante ni sa papa yi taxaw yëkkati nañ ko ci yow ak décoration yi nga xamante ne defal nañ la ko. waaw santaat yàlla bu baax rek waaw julliwaat Seydina Mohamed. sant sama ñaari waajur santaat sama sëriñ. waxal jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf Serigne Touba sant sama yaay bu baax kontaan naa sama xol sedd na ñoom li ñu def ah dëgg yàlla sedd na sama xol ndax tey lu ñu doon tey ñoom ñooñu ko def lu mu métti métti dañuy sant bu baax nag dañuy santaat bu baax di leen sant di leen ñaanal loolu laay mën di leen ñaanal. parce que maanaam tey nit amul lu dul ay mbokkam nit amul lu dul maanaam ay baayam ak i magam nit amul lu dul ay soppeem ak ay fansam ñoom nag wax dëgg yàlla li ñu def nii dafa rëy trop ci man moo tax mu demee nii Serigne Saliou Touré na dama koy sant bu baax a baax a baax ndax mi ngi may dimbali mi ngi may jàppale mi ngi may taxawu te seetaanu ma ci dara man alhamdulilah rek laay wax wax jaru sax wax ji di bëri moo waral jooy yi quand même parce que gis nañu ni magu Cees yi ñëw décorer la ngay jooy jooy yi lan moo ko waral. non xol bu sedd la rek. du dara xool bu sedd la rek parce que man moom maa mel nii man wax dëgg yàlla man bëgguma sax ku ma gërëm barke Mouhamed bëgguma sax ku ma gërëm. baax na baax na man mooy man mooy àndal moom bët bu sedd boo ko gërëmee sax day jooy. yokk bay ko rek. ana ana yow lebaluñ la dañ laa fay si bor. barki yonent bi lebaluñ ko de dañ koo fay si. del déglu del xool Feeling Dakar